xamante ni dina ko yokk ci yéen ndaxte nit ki luy def lu ne jàppal ne que dina la mës a firi ni que da ngay joxe rek yow doo jot waaye bés boo ñëw mën tam nekk ci soxla ñu am ñu la taxaw ndaxte ñi ci bëri dañoo jàpp ni que bi nga xamante ni ubbeeku na ba mu wér ñoom dootuñu nekk ci soxla moo tax amuñu